gis ngeen ñoo ngi toogoon nag beneen animatrice boo xam ne kenn dootu ko présenté biir Sénégal bisu ñu ngi leen di. maa ngi leen di fay waa Wassare tey jii boo boo expliqué tey la moo waroon sa teewaay fii lu muy doon. bon je viens pour ñoom ñaar ñëpp que ce soit Ngaaka euh, wala Fatal parce que ku nekk am na ak yow benn bu particulière Fatal moom maman la may woowee parce que on a une benn point commun muy social surtout. xale yi daf leen di jàppale et parfois elle a besoin de conseils parfois dinañ si waxtaan jéem a xool nan la ñuy def pour collecte du marché yi tout ça donc loolu moo ñu boole ba ñu am relation bu nice vraiment muy marié invité ma ma ñëw ngaa ko pareil moom c'est un boo xam ne banlieue la jóge comme man euh, mu nekk nit bu mën li muy def gëm boppam donc euh, su génnee dara dañ si jàpp def promotion bi et à travers euh, promotion wu li muy def si lañ dem ba développer ay relation d'amitié aussi donc ñoom ñaar bu ñuy marié mënu ma def lu dul ñëw. tey jii waxoon benn conseil boo xam ne mu nga jox Ngaaka Blindé ak kii di Faté Sarak mun nañ sax à chaque fois bu def publication sax maman lay def. alors conseil pour seen mariage mooy nañ dëggal seen bëggeel fu ñu toll kenn bañ a jàpp sa morom pour acquis euh, ñu wóoluwante di waxtaan bañ xajal kenn seen biir euh, ak lu mu mun ci nekk ñu communiquer pour jéem a résoudre seen ay problème je pense que. su ñu defee loolu yàlla mun na leen jàppale seen say jëm kanam. mais temps yi tamit ñii di téléspectateur tamit nam nañ bisu bisu fa la nekk. maa ngi sama kër ah <laughs> maa ngi sama kër toog. Euh, gars yi soxlawul la sa kër. c'est un peu complexe mariage euh, mu nekk li nga xamante ni si surtout si célébrité yi mu nekk loo xamante ni scandale la mun nañ ko ku nekk di wax ne que célébrité nanguwuñu sëy nanguwuñu sëy ni que ki i xam ne moom moo di sëppal Amina Poté aussi génn seen biir vidéo ñu koy ñaanal tamit yàlla may ko xolu bu parce que ce n'est pas tout évident mais mais nit ñi li nga xamante ni jël nañ ko attesté ko ko ci ñi nga la ci euh, man jugement la rek ay nit yu xamul moo tax ñu jugé nekk célébrité du sëy parce que avant d'être célèbre les nit yi ay nit lañ te nit bu nekk booy projet ta mariage c'est pour toog si pour fonder sa famille pour am projet la après euh, avant ñu leen di juger j'aimerais bien ñu dem xool lan moo xew si biir lan moo tax nit yi divorcé ba xam dëgg bi mais dañuy jël rek def ñëpp ci benn pot ne bëgguñu sëy te je suis sûre que buñ doon def euh, tey sondage nombre de divorce yi que ce soit ñu ñu xam ak ñu ñu xamul yëpp benn lay doon donc pour man loolu benn jugement la boo xam ne nit yi ñoo koy def rek mais nekkul loo xamante ne lu am la. est-ce que nekkul ni tamit sëy bi affaire mascarade la parce que tamit li nga xamante ni moom moo di biir mën a espérer fekk ko fa euh, peut-être que ñoom duñ ko fa fekk certains loolu la ñuy wax que ni virus bi nga xamante ni moom lañ espérer nekkul ni moom moo fa nekk et que li nga xamante ni moom moo di célébrité euh, li muy affiché ak li nga xamante ni moom moo nekk réellement doon loo xamante ni benn la looy wax si loolu. encore une fois célébrité yi ay nit lañ euh, nit yi marié wu par intérêt ils ont pas besoin de nekk nit yu ñu xam pour def ko am na nit yoo xam ne kenn xamu leen ni Dadan ni Dev et pourtant. soo yorul wala nga promettre leen benn vie bi duñ dugg si yow donc ñu éviter di di di di généraliser te je pense pas que nit dañuy dugg pour xool benn vie en rose parce que ñun bu ñu pusi sëy boo ci génnee coow daf lay topp donc du lu ñu gënal. conseil pour nga bëggante wóoluwante di waxtaan di communiquer dundal seen amour. xam nga euh, bañ a xajal kenn seen diggante incha allah yàlla di leen jàppale merci. Euh, Bijou temps yëpp euh, fans yu bëri na ngay laaj ana Bijou ana Bijou si lu mu nekk. maa ngi sama kër. def laaj gars yi soxla wuñ sa kër gi ci télé bi la soxla. maa ngi sama di toppatoo xale yi di leen yóbbu école di lijjanti sama kër di bind ay émission aussi di teg en attendant télé bu ma soxlaa rek dinañ ma woo ma ñëw liggéey si. ma ne ma waral non sa arrive hein, parfois euh, si programmation wu télé bi soxla wuñ la si pour l' instant soxla wuñ ma buñ ma soxlaa dinañ ma woo. kon daal fas yi daal ñu xaar la daal yaa ngi ñëw ak yu bees. bon xaw ma de pour l' daal maa ngi nelaw ba 14 heures. kon daal de mën naa kon est ce que peut-être est ce que saa est ce que mën ne kon est ce que euh, di euh, Bijou dafa génn TFM wala bële moo ngi TFM. non génnuma TFM maa ngi TFM TFM c'est ma famille. c'est ma famille c'est juste que ñun dañu am ay patron yoo xam ne ñoo ñu jiitu ñu jiital leen ñoom xam nañ lan moo gën ci télé bi su fekkee dañ ma soxla pour mettre ma en avant pour une émission wala quoi que ce soit dama leen di déglu ñu woo ma ñoom ñooy sama ay kilifa heure bu ñu ma woowee damay jug dem liggéey liggéeyi. problème nekkul lu Sénégal yi bëri di wax mooy maanaam TFM dafa bëri ay animateur wala ay présentatrices loolu moo tax. dafa bëri ay animateur donc programme yëpp ñëpp duñ si mën a xaj. mais ku nekk am nga fa sa place parce que ku nekk am na looy apporter chaîne bi ku nekk am na loo xamante ne yow kese yaa ko am mooy sa touche personnel bi ngay apporter groupe bi c'est vrai que suñu programme dafay fees. Euh, y a tellement d'émissions yuy xaar si ginnaaw que ce soit man ñeneen ñi mais quand les choses doivent se faire elles se font. merci beaucoup merci à vous.